mu ngoog euh, ngeen di topp seen émission Sabah seen télévision Al Mouridiyyah kàddu gi di bàyyi ko fii ci daara yi Hizbut Tarqiyyah ci route Belel bi ci euh, bu ñëwee rek ba ci euh, HLM su ko defee kon imam gan xasida wala yar ak ñu fas yéene laa biir tey. waaw xasida gi day day day day dafay jëm ci rek ci. Mhm. téere boobu mu tudd Jawharu Nafis. waaw te mu way ko ko ci téere bi ñu tudd léegi mooy Laxdari yu mhm. nga xam ne mu kàllaf mu dugg ci lii la war ci yow si njëlbeen mooy nga fexe ba gëm yàlla moom lay wax ne awalu ma awjabahu rahmaanu xatan ala mukallafi l iman mm-hmm. li nga xam ne yàlla waral na ko ci njëlbeen mm-hmm. premièrement nag li njëkk war a war ci ab mukallaf mm-hmm. mukallaf lay commencé nga boo defee lu baax ñu bindal la ko boo defee ab safaa ñu bindal la ko kon nag lii war a njëkk ci yow mooy ngëm ngëm googu danga ko war a defar d'accord waaw mais doo judd rek ñu def ba àgg ñu lay togg nañ la jëf jëf yi loo jëfee des na ko bind bu dee aw yiw la bu dee ab safaan des na la ko bindal bu dee li ñu fay la ko bu dee sa safaan bi tam ñu fay la ko fa kon war ngaa li nga war a njëkk def mooy ne xam ko lan mooy ngëm yàlla su su gëmee ba noppi nag beneen eh, wéral ngëmam wax nañ fi bëgg dem xool lan mooy yàlla fexe ba xam ko melokaan yi war ci moom ak yi jomb ci moom yëpp ak yi dagan ci moom yi nga xam ne mën naa am mën naa ñàkk yëpp nga xam ko su noppee nag su mata maarifatu maa yuslihu bii faraid al ayni jamian famto bi mu xam nag bépp xam-xam boo xam ne dafa aju ci luy defar diineem luy defar farata jëmm farata jëmm bu ñu ko waxee mooy farata yi nga xam ne kenn mënu la caa wuutu d'accord loolu nit ñi nañ ci bàyyi xel mhm. kenn mënu laa julli kenn mënu laa wooral mhm. dégg nga kenn mënu laa euh, demal màkk ak yu mel noonu boo mhm. bëggee dem dégg nga yooyu yëpp farata yooyu da nga ko war a xam te chaque jour yaa ngi ko war a pratiquer di ko pratique ci wéet léeg-léeg di ko pratique ànd mbooloo waaye war nga xam ba xam nan la. mu ne bu dee ci dem màkk gi léeg-léeg nga dégg ne damay ajali sama baay wala damay ajali sama. mën na nekk waaye day fekk aj ba pare. ah day fekk ah day kenn mënu kenn sa baay wala sa ndey te fekk ajo ba noppi. Ah. mënut a <laughs> war naa leer de. Ah, te loolu dafa bari nag. dafa bari mais mënul ne. Ah. yow war yow la war. aj yow la war. d'accord yow nga joxe sa wur sa baay wur sa yaay. boo joxee sa faratay bopp soo joxee sa farata ba noppi nag moom waaw bu la neexee defal ko mën na fekk moom faasu nañ wala mënuñu ko mhm. nga dem defal leen d'accord mhm. leen que am ñoo xam man du ma aji te sama baay ajeegut erreur fekk bàyyi moom màggat na ba mënut wax nga ko wax léegi wax nga wax wax wax ko wax bi léegi sànq nee nga diina ji diina ji du mbiru xel waaw <laughs> waaw nga ah. loolu boo xel mu rafet rek wala yoon no mais noonu hmm. yow la war yaa ko am hmm. yow la war koor gi hmm. mais sa baay mënut a woor nga war a woor na kon sa koor naa woor sa bàyyi bàyyi <laughs> kon no loolu moo war uh-huh. te sëñ Tuubaa ñu wax ne uh-huh. lii lépp mën na leen ko warlu bindal leen ay téere daal di bi téere uh-huh. soññee bind ay leetar ne képp ku aju ci man li ma leen njëkk a wax mooy na nga xam lu say fart d'accord kon loolu nañ ci bàyyi xel bu baax ku man di doon muy góor muy jigéen uh, na nga daal di jublu ci xam na ngay jullee na ngay sa fardo ay nii yëpp nga seet xam nan nga koy defee nga xukumi mi nekk atteb koor xam ko tëhaar laab surtout laab surtout jigéen ñi gis baax lu compliqué a baax ban heure lay sangu bu ma sangoo heure sàngam ndax julli gi war naa ko fay wala war naa ko julli wala gi bokk ci jëng cangaay lu muy demee kañ laa war a sangu ah ban heure bu fiy bu bu dikkee mooy bu ma baax bi dikkalee heure tel fekk na kon julli gi war na ma wala waruma woon. yooyu yëpp dafa dafa compliqué war nañ koy jàng di ko xam bu baax. xam attey làpp xam attey julli. naafila ak aj ak zakkaat yëpp nga xam ko. waaw euh, imaam danaa la dog foofu tuuti rek ci ci wàllu soxna yi euh, ak seen baax jamono bu ñu war a sangoo bu ñu war a sangu léeg-léeg koo xam danaan euh, man kat pare na waaye damay bàyyi ba mu gën a seet wecc maam nga xam ne diggante boobu mën naa am am na julli fa jaar waaye moom daal nee na moom a seet wécc te mën naa a seet bu mu amut waaw ñun lañu ah, xam mooy deret ji dagg na donte mi ngi génn par toq bu ndawit seetagut mm-hmm. seetagut waaw waaye du xasee arrêté nag mm-hmm. arrêté na amatul daan naa néeg naa kii déedéet amatul wóor li mm-hmm. ci waxtu wi waaw déedéet waxtu wi jot wóor na pare nga wóor li gën a mooy dugal morso xool xool seet coton wala dara gis nañ seet na vraiment fen na kër bi na jeex na Mm-hmm. mais demal julli amatoo xaaraat nag waxtu wu da nga ko war a léegi boo sàgganee ba mu raw la da nga am bakkaar. léeg-léeg mu ragal tamit julli ba pare toog mu yàlla dogal mu génnaat wala tuuti génnaat. waaw su baa benn am na atte bu ci aju bi tam loolu yëpp ay eh, ko nag yëpp ay ahkaam la yoo xam ni <laughs> eh, dañ war tam jàngi ko xam ko te lu ñu mën a xam la ñoom bayangu jigéen juñ ci doon mm-hmm. surtout jigéen war na xam attey régal yi mm-hmm. attey régal yi ci islam dafa dafa dafa simpalul compliqué il faut dafa compliqué il faut ngeen dem ngeen ngeen jege borom xam-xam mu waxal leen ko leeral leen ko yëpp nu ngeen ko war a defee. Hmm. dégg nga su daggee mu ñëwaat diggante bi di sance bi nu mu toll nag ndax kon nii dañ ko war a boolewaat ak wala beneen bi sosuwaat la yooyu yëpp ñu xam. ñu xam ñu xam atte yi dégg nga hmm. yooyu dañ ko war a xam. lii kenn du ko wéyalil kenn. Hmm, sinon da ngay wéy ci ay njuumte. te fekk ngay def. waaye bi si ëpp solo nag mooy mu ne nag. suma ali an yu xafisa ala xurud rabbil asi jàlla wala moom mu kaalafa mun war na ko nag muy hmm. eh, sàmmonteeg eh, day tali borom asi ars yi maanaam fi ko suñu borom limite yi mu di ko respecté hmm. yemal fii na fi yem hmm. bul dépasse fii bu mu fi yem loolu mooy yan waaye inda amri wa nahyi yaxif bu nee arrêté na arrêté su nee ko avancé mu avancé loolu moom loolu nag lii faaw mu nga xam su boobaa nag moytu lënt nga moytu lënt yi wa na taxaw mu ne way yàqi fi yénte amri yii wa nax yii dégg na taxaw ci fuñ ne ko dig defal mu def mm-hmm. fuñ ne ko bàyyil mu bàyyi mm-hmm. dégg nga taxaw ci digal yàlla yi ak ak yi mm-hmm. loolu tam na xam ne mu ko àllaf ne war na ko sëñ bi nag wàccoo naa ñun ndax nee na warul laa leen ay téere yu ko def def na ko ci tawxiid surtout dégg nga wéetal yàlla noonu lañ koy defee def na ko ci mooy imaan mooy xam-xam bi jàngale ngam yàlla dégg nga xam-xam bi jàngale l'islam mooy wax naa ko léegi te mooy nooy wooreek nooy julleeg nooy laabeeg nooy asa nooy joxe asakaak nooy dem màkka yooyu yëpp mm-hmm. leeral na ko mm-hmm. bi ci des mooy xam-xamul ihsaan ihsaan bi mooy ñetti xaaji diine yooyu yëpp ci nekk nga xam ko mm-hmm. ihsaan bi mooy li may jaamu yàlla naka lay def ba yàlla nangu ko. Mhm. bañ mu bañ maa nekkal ay coono kese. Mhm. loolu mooy nga rafetal ko rafetal ko mooy. Mhm. nga nan ngay jaamu yàlla mooy booy jaamu yàlla nga xam ne suñu borom mi ngi lay gis. an ta'buda llaaha ka'annaka taraahu. fa in lam takun taraahu fa innahu nga xam ne mi ngi jàkkaarloo soo gisul yow it xam ne mi ngi lay gis. nga teewlu xam li ngay def wéet ak wétaliku lépp ci yam. loolu mooy yi nga xam ne. Euh, mooy njëlbeenu li war ci mukallaf mu nekk. Ah. mukallaf nag bu ñu ko waxee mooy koo xam nga am nga 18 ans wala boog amoo 18 ans yées nga ko tuuti waaye mandarga yi wane na yow mii mat nga góor yëpp ci saxi kawar ak ay xeetu ndox yu génn ci yow yëpp nga nga yëg ko yëg yooyu yëpp nga xam ne kon léegi mu kàllaf nga li nga war def rek mooy jéem gaaw xool bu fekkee ko woon waajuruñ la ci nga jéem a xam nag dem la war nag mooy say waajur waajal la ci mhm. waaye su fekkee amutoon it mhm. na nga daal dem yow def ko sa bopp ndax sa boobaa yow am nga ci responsabilité boo ko say waajur deful am nañ ci responsabilité mais yow boo ko war defoo ko am nga ci responsabilité. waaw ah, ci lu wér ci lu wér jërëjëf imaam ñu ngi koy santaat bu baax a baax bu mel ne kon euh, sëñ Mawal Lamine mm. euh, sëñ bi daf ñuy soññ fii rek ñu wane tamit ne euh, jullit gi bu fekkonte ne maanaam xaaj na lu mat xaaj na ak dundam mm. lu mat ñetti xaaj mm. xam naa ne ba moytul benn ba moom wala wala ñaare daanaka dafa war a jëm ci ab gëstoom ngir xam diineem ak nan la ko mën a nan la ko nan la ko war a dundee ndax loolu rek moo koy musal. waaw dëgg la ndax euh, suñu Amadou Touré wax na ko sànq. Mhm. l'islam moom. Mhm. kenn tegu ko ci ay xalaat. Mhm. waaw ak nii laa ko gisee. boo ñëwoon am positif lool ñëwee tisbaar nga ni yàlla de xam naa. daa bañ gaa yi sonn. <laughs> ñeenti rakk la waaye moom juróom ñett lay def. <laughs> gi day far yàqu. ci lu wér te yow da ngaa mu baax. <laughs> Oh. kon nee na loolu xew-xew boo doon woor itam. Uh-huh. di woor ba woor bis boo xamante ni uh, uh, bisu it la. des ko tere uh-huh. des ko des ko tere kon nee na uh-huh. loolu nag lii tax nga xam sëñ bi ne. du ngeen mën a xam mukk luy teqale diggante dëgg. ak neen te amu leen xam-xam. Hmm. te mu kàllafa moom. Hmm. Uh, li tax mu war a xam yooyu yëpp mooy. Hmm. moom dañ koo togg jëf. tàmbali nañu bu defee benn bu baax ñu marqué bu defee ab safaan ñu marqué te tey jii xool li mu wax ci wàllu atteelaab loolu farata ji yegg na ci farata joo xamante ni soo demee ci dénkaane bi sëñ bi dénk sëñ Omar Diop ci miftaahul xuyoo fii jawaabi xil naa Omar Diop man gis naa mu indi ci leeral yoo xamante ni gisuma ko ci benn téere pour won la ne du lu du lu du lu simple. diggante koo xam ne gone la wala koo xam ne mag la wala ak ak ak ak ni muy demee. Mhm. ba noppi nag ni mu ko tënkee mooy lii lépp nag moom jigéen ji. Mhm. borom këram moo ko war a xamal bu fekkee xamu ko. Eh, léegi bu ko borom kër ba xamul nag. sañ naa génn xamul sañ naa génn xamul ko. Ah. Ah. mu utal ko koo xamante ni moo koy ah. jàngal. boo xoolee jigéen yi tax sax mu génn. loolu la mooy dem naa ba man mi sama borom kër gi mënumaa jàngal. Mm. jox na ma ndigal naa dem fu may xamloo ji. Mm. wala mu indil ma ku may jàngal. léeg-léeg nga gis borom kër boo xam ne maanaam soxna si xamut ma ngay génn ngir wuti ko ko xamal ah. waaye borom koy day sa njàng mii nag mi ngi may bëgg a soof nag li ngay génn bëri na <laughs> saa bu ma la soxlaa du ma la gis ah, xam nga xam ah, te moo ne loolu yaa ko waroon léegi nag léegi tamit dafa am sart tey jii yow bu fekkoon mën ngaa am mhm. jàngalekat bu ñëw ci kër gi di di la jàngaleel mooy gën mooy gën su fekkoon maanaam mën ngaa am fooy jàngale foo xam ne mooy gën a daw mooy gën a dal xelam mhm. moo gën mhm. boo fekkee mën nga am fu gën a jege moo gën waaye foo xam ne saa boo demee boo ñëwee reer bi xam <laughs> mbaam taat moom bu jëree jàmm tey bu subaa du ko jur nga gisee ko lislaam moom <laughs> uh-huh. dafa bëgg lépp tege maanaam ci ci ci yoon woow uh-huh. loolu nag moo la suñu amatul di wax nii ndax loolu li tax maanaam ñu koy ñu koy ñu koy ñu koy def mooy uh-huh. tey jii euh, xool la sëñ son bi wax ci yi nga xamante ni sax mën naa indi nit ki ay jafe-jafe ëllëg nit koy wéyaale sobe hmm. tey am na ñoo xamante ni tey defe nañ ni bu ñu euh, tuuroon ndox te amuñu ndox mu ñu siiwoo it mhm. mën nañu bàyyi noonu mu dem loolu garaawul wàññiwul dara te sëñ bi nee na loolu bokk na ci liy waral mbugalu bàmmeel eh, eh. yonent bi saa sallam dafa mos a ñëw fekk ci benn bàmmeel mhm. eh, ku ñu ñaar ñu ñu mbugal mu ne ñii de moo ne leen di mbugalee de lu lu lu lu simple la mhm. du sax lu garaaw ci ñoom ñu ne ko mooy la mu ne bu ñu mosaan siiw daawuñu daaw daaw daaw bu ñu mosaan tur ndox daawuñu siiw te loolu nga gis nit koo xam ne ab jullit la defe ne war na ko mën def te du wàññi dara te nee na loolu day waral nit ki mm-hmm. mbugalu mbàmmeel loolu da koy waral dëgg la noonu nag la baree loo xamante ni tey mm-hmm. soo ko defee mu mën a indi mm-hmm. loolu xam rek xam rek mooy tax nga man koo xam moo tax alxuraan digle ne fas alo ahla zikri kon ñoom la leen fi bàyyi mooy ku amul loo xam boo ñëwee ñu xamal la ko te ñoom it sañuñu nit ñëw laaj leen nangam ñu xam ko bañ ko ko wax nga gis ne kon loolu kon suñu borom digal na leen ñu def ko waaye digal na itam ñu war a sàkku ji xam-xam ñu sàkku mm-hmm. xam-xam mm-hmm. moom sëñ bi tàmbalee dafay lislaam moom dafa bañ rek kuy kuy kuy tañaxu mm-hmm. boo xamante ne day seet ni mu ko xalaatee wala ni mu ko arrangé te nag sariya li ci gën a yéeme mooy att yi nga gën a jàpp ni sax moo gën a dëppoo ni ko xalaatee mhm. léeg-léeg nga laajte ñu ne déedéet yi léeg nga garaawal loo xamante ni lislaam garaawal ko ah, léeg-léeg nga néewal loo xamante ni mhm. fa ko yeggale mhm. buñ la ko leeralee nga xam ne kon maanaam euh, xamoon ko mat na ko moom ñaar moo mën a am rek li yendu saa woon ne doonal ñeenti ñi waaye bul doon kenn di juróomeel nee na doonal kuy jàng xam-xam wala nga koy jàngale walla nga bëgg ko wala ngay ku leen dimbali waaye bul doon ko ah, mooy koo xam ne mu itti ko jàngalewu ko toppatoo wu ko dimbaliwul kenn yoon yoon yoon yoon néew dëgg la léeg-léeg nga gis it nag euh, benn borom xam-xam bu rafetum xel lool rafetum xel euh, ba léeg-léeg sax di xaw a xaw a xaw xaw a yàq xel yi xel yi xel yi xel nit ñi yu demee noonu nga xam ne soo ko waxee ñaare euh, dana la jox léeg-léeg ay preuve wala ay argument maanaam masalan ci masalan rek bu ñu nee tey ab sëy mënees na koo tas ci ab SMS tas ci misaal waaw tas mun na ne. mun naa nekk oui waaw. moog leetar ñu yem na am ñoo xam ne nanguwuñ ko de. am ñoo xam ne d'accord non non hmm. takk non non tey loolu kenn weerante wu ci ah, ah, def ci SMS. la rek. Hmm. leetar la rek. Hmm. boo bindee leetar. fas sa bu bu bu jox bu jotee leetar bi rek. na am na amul problème SMS la rek moom it soo ko ci waxee. bu dee góor gu mel ne Cheikh Matar Lo mën naa bind ci message bi bàyyi naa la nga dem am yaa mu ne non mu ne yàlla laa bëggoon a bind yàlla gi daa ñëwut. bàyyi naa mu ñëw su loolu tam lépp am na. xam nga fase moom même boo waxoon sax boo waxoon sa jabar waxuma la SMS ne ko bàyyi naa la te fekk jublu woo ci loolu fase tam dafa am jublu même boo nekkoon soo nekkoon Euh, may naa la euh, la euh, wax waxin woo xam ne yow fase nga jublu tam fase la mm-hmm. Mm-hmm. jublu bi mu am solo mm-hmm. kon boog loolu moom muy SMS ah. ak mu bañ a nekk SMS ñooy ma muy SMS ak mu bañ a nekk SMS bu fekkente ne du du sariya du du fase mu leer fase mu leer fase naa la mais bu ko yónnee message ñu dem ba mu yàgg xam nga bu ko yónnee message ñoom ñaar rek la kii ko liir kii ko yónnee ñu dem ba mu yàgg mu kii mu ne non jubluwuma ci woon parce que wax nga léegi jublu gi da ci am solo xam nga jublu gi moom may bu budul sa budul talaax bu sariixa bu leer. jàkkaarloog leetara ci yam. même boo nekkoon gënal gënal kër gi tey. gënal te fase nga jublu fase la. waaw fekk fase nga ci jublu. waaw bu fekkee da jël benn expression boo xam ne nag la nga ci jublu du fase doonu ko. <laughs> bu dee fase mu leer la nag moom imaam imaam mu lëndëm de déet déet xam nga lëndëm gi du sms bi moo ko lëndëmal lëndëm bi mooy sa waxee yow sa expression bi mais nan la ñuy xamee nag intention nit ki noonu lan la ci jublu woon ak yu fase voilà kooku moom mi aj ci moom tey jii jii bu nee nangam bu nee bu waxee loo xam ne leerut te jublu ci loola mm-hmm. su nee fase nga jublu ma jublu ko ci mm-hmm. c'est terminé eh, waaye nag te moo ne man naam ba mu koy wax moom jublu waaye waaye loolu moom mm-hmm. waaye nag loolu lu mu lëndëm lëndëm lëndëm a fase bi moom du dogee ci ñëw am na eh. fu ñu koy attee eh. fañ koy attee ñoom bu ñu demee jël nañu matuwaay <laughs> ah, su wax ji leerul eh. bu leeree su ko <laughs> su dee waaj la ko waxoon bëgg ci génn bu delloo ginnaaw bu nag loolu am na ci moom mi ngi moom mi ngi ne jonn kay li li nga wax loolu fase bi jul ma jublu ma ci fase parce ah. que laa jublu ah. jeex na jublu ma ci ko mu mu ne ko waxuma ko hmm. mu ne ko wax mu ne ko waxuma la lii jublu ma ci naa ci lee am na nu ñu koy <laughs> léegi dafa am na fase mu leer waaw am na lu leer. nañ mais sa SMS nga jël sama soxna si may naa la sa baat. Hmm. fasin wu leer la. Hmm, hmm, wala fase naa la kat nangam nangam mais mu jot ci moo bindu ko leetar ñooyam. d'accord d'accord baax na euh, mi ngoog kon euh, euh, loolu moo ñëwoon ci xaside gi parce que dafay imam ñu tënk rek kii bi xikma bi. waa xikma bi day dafa am al asr moo ko wax. nee na xol yaa ngi yàqu. te yàqute xol yi mi ngi jugee ci juróom-benn yëf bi ci njëkk mooy mooy dañuy def bakkaar ba noppi yaakaar tuub mm-hmm. yaznibun bi rajaay mm-hmm. bi ngay def yow dara taxugal ko lu ma yaakaar tuub képp mm-hmm. ah, bi ci des mooy waaye yataallamuuna al ilma wala yaamaluuna bihi di jàng xam-xam boo xam doo ko jëfe saaba yi ñoom bokk na ci li ñu daan def mooy lu ñu mës a jàng mhm. bala ñoo jàll ci leen dañuy noonu ñuy jàngee jàng gi <coughs> noonu la ñuy jàngee jëfe gi ah, waaw saaba yi ji toppari ñëpp asalafu saalihin yi kon lépp lu ñu xam hmm. dañ ko daan jëfe hmm. waaye jàng xamam doo ko jëfe itam ne bokk na ci li hmm. bokk na ci itam wa isa amilu la yuxlisuuna bu ñuy jëfe duñu sellal jëf ji kon da nga war jàng xam-xam bi boo dee jëf-jëf bi ko sellal bi ci des yaskuruun dañuy lekk wërsëgu suñu borom te duñ ko sant sant gi mooy da ngay jël énergie bi mooy lekk gi ba noppi ba am ci doole am ci kàttan am ci xel am ci lépp mhm. te la taxoon suñu borom bëgg soo amee kattan boo amee xel soo amee nga jëfandikoo ko ci noonu nga jëfandikoo ci yeeni fi ah, ah, ah, loolu mooy ñàkk sant gi boobu ci la bokk mm. bi des mooy wala yardoona bi xis bi xismatillah mm. ni yàlla séddalee duñ ci d'accord mm. yàlla séddalee d'accord ci ni yàlla séddalee. d'accord d' accord jox na kii cent millions. Hmm. capital yow deux nga am. Hmm. wala kii am micro bi yow nga am. Hmm. loolu daal d' accord aussi. te buñ ci d' accord rek ñaar wuti pexe rek. ah voilà ah. Ah. benn bi mooy. Ah. wa yadfunuuna mawtaahum wala yaxtabiyuun nekk ñi ngi suul seeni néew te duñ waaru mukk Ah, waaw loolu moom yegg si nañ dañ cee yegg si bu baax a baax ah. yàkkamtee suul ba delluwaat ci magasin bi <laughs> naan fu mooy toll <laughs> sa waay tonn bi mu fi jëloon ndax fay na ko eh, eh, si si loolu de li si Amadou Touré wax nii hmm. eh, surtout juróomeel bi hmm. mooy dañuy dañuy dañuy duñu duñu d'accord maanaam hmm. si ñu yàlla séddale <laughs> waaye day nettali benn xisa nee na xut ba àjjuma la nee na ilimaan ji yéex a ñëw am benn waaj yoo xam ne daal <clears throat> ni ko séenee melokaan mm. day mel ni maanaam ku xelam xaw a jaxasoo mu ñëw yéeg ci minbar bi mm. ne yéen nit ñi mm. yàlla da leen bind séddale leen ñaari xaaj ñii am war a sant ñii ñàkk war a féere wu muñ mm-hmm. yéen ñi nga xamante nag yor sant leen yéen ñi yàlla xañit mu muñu leen mhm. bu ñu waxee nag ngeen fees ni ci jàkk ji mhm. kon nag seen jullee ngoog yéen naa <laughs> est-ce <laughs> muy xutba bu doy doy waar boo xam ne mhm. nee waaye xel mi daa xaw a jaxasoo waaye boo xoolee li mu wax wax na waxi waxi waxi maanaam waxi maanaam euh, waaju mooy <laughs> ku ku ku ku ku ku doy war daal. waaw wax dëgg kii la wax xam-xam xam-xam lëmu. wallaay beneen bi mooy. li muy wax ne. dañuy lekk wërsëg yàlla te duñu ko sant. moo tax sëñ bi wax ci masaal bi naan nee na képp koo xam ne yaa ngi lekk. wërsëgu suñu borom wii te doo ko sant. nee na bu ëllëgee xamal fu mu lay jëmee. ndax nee na lim la defal lépp. defaloo ko ngir noonu de. da la koo defal. ngir bëgg nga nga nga sant ko te itam euh, euh, dina dina dina dina dina dina la ko laaj dëgg la ci lu wér jërëjëf sëriñ Mamadou Lamine Diouf euh, jërëjëf tamit sëriñ Ahmed Touré al imam mu doon sunu gan ak tey jërë ngeen jëf yéen ñi nga xam ne yéen nekk ci régie bi sëriñ Cheikh Nafal ñu lay jaajëfal bu baax a baax ci liggéey bu rafet bi su ko defee kon daanu sant rek ñenn ci suñuy téléspectateurs yi nga xam ne dañuy faral di ànd ak noonu saa ne euh, Baye Gora Dieng Baye Gora mi ngi foofu ci euh, Darou Khoudoss ñu ngi koy nuy di ko ziar bu baax a baax sama xarit la euh, di sant it Serigne Cheikh Ndaw moom ma ngi ca Touba Mesere ak Serigne Cheikh Kébé bëgg jàmm Baye Cheikh Kébé bëgg jàmm fii ci Touba Guédé ñu ngi koy nuyu di ko ziar bu baax a baax ak ku ñuy wax Serigne Mourtala mu seriñ Saliou moom tamit ñu ngi koy nuyu di ko ziar Mbacke Bala mooy Serigne Mourtala Mbacke moom Cheikh Saliou Mbacke Mbacké ñu ngi koy nuyu di ko ziar moom la ñu a jiital sax sëñ Baara Bétoo ñu ngi koy nuyu di ko ziar moom it bu baax a baax a baax euh, di sant it euh, soxna Faati Samb euh, fële ca Canada ak Mame Diarra Samb moom mi ngi ci Dakar Parcelles Assainies soxna Anta Samb soxna May Samb soxna Astou Gawane Samb ñoom ñëpp ñu ngi ci dakaar Parcelles Assainies ñu ngi leen nuyu leen ziar bu baax a baax max fos Diop euh, mi ngi ci marché Tilène bu Ndakaaru ñu ngi koy nuyu di ko ziar euh, ak euh, Serigne Maysa sekk moom tamit ci Touba ñu ngi koy nuyu di ko ziar bu baax a baax Serigne Maysa docteur gise ñu ngi koy nuyu ma nga fële ci Kaolack clinique Bodian ak frère am Malick Guissé moom sunu xarit la Serigne Malick ñu ngi lay nuyuwaat di la ziar bu baax a baax a baax. di nuyu sëñ Ngagne Mbengue ci Touba Guédé ak euh, sëriñ Mamadou Dieng euh, sëriñ Cheikh Ndiaye ak euh, sëriñ Cheikh sëriñ Ndiaye sëriñ Ndiaye ñoom ñu ngi ci marché Ocass ak Ali Ndiaye Ali Ndiaye it ñu ngi koy nuyu di ko ziar bu baax a baax moom ak góor gi gisee ak Modou Pal ak Modou Dieng ñoom ak Mbaye Dieng ñoom ñëpp ñu ngi ci Ndakaaru Géejawaay foofee ci atelier ba beneen Mbaye bi ci Colobane moom tamit ñu ngi koy nuyu di ko ziar bu baax a baax a ak Soxna Ndey Fall moom tailleur la ci marché Ocass Euh, sant ñëpp jaajëfal ñëpp soxna awalay ci Touba guy mbind ñu ngi lay nuyu di la ziar di la masawu coono euh, ci gàllankoor googu nga xam ne si moo ko dal fan yi ñu ngi koy nuyu di ko ziar bu baax a baax baax euh, su ko defee kon nu jox leen rek xanaa dikk daje fàttaliwaat leen numéro yi whatsapp yi ñi nga xam ne bëgg nañu ci dugg su jox naa faal nga may ma tuuti rek 77 549 56 28 77 549 56 28 ak 77 745 35 21 77 745 35 21 am na ñoo xam ne sax mokkal nañu ko léegi xanaa ak 76 887 86 11. 76 887 86 11 mooy numéro whatsapp yi nga xam ne moo leen di permettre ngeen mën a dugg ci groupe euh, soppey Assabaye groupe 3 bi ci la ñu nekk ngeen gaaw balaa muy fees euh, su ko defee groupe 1 groupe 2 groupe 3 yi ñëpp ñu ngi leen nuy leen jaajëfal bu baax a baax jox leen dig daje samedi ak jàmm ci seen beneen émission ëllëg ngeen ànd ak euh, Serigne Imam Niang ak waa desk arabe bi ci Assabaye arab asalaamaaleykum wa rahmatullah